naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse teel sa kaas kafe nga guux bala ngay naan bay si mu leex moox la xew ci réew askan sunu gaal gi fii nu nekk nii di réew askan sunu gaal ma ni borom wata bu dikk laa wax am problème mu cardan problème mu ay pneu yu yàgg mbaa problème mu feu waay waay nee ma problème technique rek ah sax wata bu yàgg lool lool def lu ëpp 40 laa wax ñoxor ñoxor rek xoj xoji nga eh, nga am ko mu dem dem ah jox la ay koppar boxom man la nga bàyyi ko mu dem bis bu wata ba defee soog yow ci sa jëmm wëratoo nelaw te xam ne yaa ko waral yow mi ko wàcc mu jàll yooyu la kàddu nag nay leer bu ma ci kenn sanco xeef mbaa nga di ma ci xool mbaa nga di ma ci déglu du samay kàddu kàddu premier ministre la Ousmane Sonko ko wax moom premier ministre ne comme ni mu ko doon waxee démb ak bërki démb la koy wéy di waxee ba nëgë ni laa la wax corruption bi ci jëmmi boppam ci lañ war a wax wax jooju ci jëmi boppam la ñuy yeeta mbalaka raay raay waaye looloo indi accident yi ma ne ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wàcc ci kaw tali yi ñu taxaw dañ leen di bokkal ñoo indi coow li arrêté ab wata mu leer na ni wata bi teguwul ci yoon am na ay jafe-jafe yoo xamante ni war naa mën a tax du daw yu dëppawut ak yoon sëfër ba ni la am ceel nga wàcc ko mu dem moo dul yoon ci moom ilimaani jëwrin ji lee di Ousmane Sonko day jàpp na ni bu yoon doxalee aw yoon rek accident wàññeeku ci réew askanu sunu gaal mbaa sax mu jeex fi tàkk këndëm wax na ba wax itam ci li nga xamante ni moo di yoon yi ci réew askanu sunu gaal ne tali yi tamit dinañ wax waaye daal boxamal yi ci kaw tali bi moom faw mu dakk bu ko defee rek ñetti yoon mën a am léegi ko yëglekaay ni ma loolooy corruption xanaa xamoon ne Ousmane Sonko loolu la dénoncé namañ ci nag namañ ko bu baax a baax ba noppi rek daan ne ay mesures des na ko jël nag désormais nag accident gu ci nekk gum ci mën a doon laax dinañ ko évaluer xool responsable yi nga xamante ne ñoo ca nekk yépp laa la wax wata bi fu mu jógee fu mu jaar fu mu dem naka la amee lépp dina leer nañu ni aw bëccëg ndax romb na ay montage ndax romb leen loolu lépp dees na ko lijjanti bu dee nag wata bi kayit yi mu war a am am na ko amul benn jafe-jafe màggatul bu wax wuti ca chauffeur ga xool ana lan moo waral accident gi lee en tout cas tali yi tamit ca la de Ousmane Sonko premier ministre ñu ilimaani jëwri ni ne dina ci jëli dogal dogal bi ñuy jël ci frontière yi nga xamante ni moo nekk ci diggante Sénégal ak Gambie nan ci wax ëpp tëlaw tëlaw lëw puis këlëb fi mu toll nii tembee ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay chauffeur laa wax moo xam cette place mbaa wata yu ndaw di jóge ci biir réew mi askan sunu gaal waax wuuti ca Gambie ñu leen di bloqué ci frontière yee jara waxtaane wata yi mag yi rek lañ daan sikki saakal naan duñ dem ak duñu toll nii tembe nag yu ndaw yàlla nu bloqué ubbil yéene kaay bi le quotidien yëgle kaay naan maan blocus total fermeture de la frontière gambienne lii daal nag seen wax nag lii itam buñ ci waxul xóomal ci lan lañ war a wax gannaaw panel yëgle kaay naan maan ca fa nga xamante moo di ca kaw lax ndëngën ab taxi laa la wax moo fa ni kër ni këlëb fël fëp gone goo xamante ni laa wax ab taaliba la lii moo jara waxtaane ñoom taalibe yi seen kaaraange ngi ci gootu ko mawti mi kay fi mu toll nii tembe daa mel ni rek daa waax wuti ñi nga xamante ñoo di taalibe yi xoolal ma taalibe bii nga xamante juróom benn at kepp rek ndongu la am démb ca fa nga xamante ni moo di Kaolack ab taxi ni ko rës ni xa faatu am na deneen taalibe boo xamante ni taalibe daara la 13 ans la am àllarba ci guddi ca Touba la faatu te courant nga ko faat bokk na ca xale yi ndaw ya yëglekaay gi naan man ca Saint-Louis ci jëmi boppam ga maanaam gaal ga moo fa këpp woon bilan na yeneen ñaari néew yoo xamante ne ay xale lañu laa wax di ay jigéen yu daaw ñu repêché waat leen àllarba bii nu la jóge xaayu ko ni xëpp ci suuf faatu ca daaru raxmaan ni moo di ca kër Malamine ca teewaawoon leen dal ana lan moo tax jéey yi di dalaka dalaat ci seen kaw dogal la dogal ba taxaw na ndigal jib na sëriñ Bass Abdou Khadre yëkkati na ay kàddu wax ci li nga xamante ne ñoom ñoo di école yi tubaab yi nga xamante ni moom la ñu bëgg a moo di fa Tuuba hé Fatwa yooyu la école xuma fan waaye fii ko fii rée kàddu yi nga xamante ni moom la sëriñ Saliou Mbacke déggoon te digle woon ko askan wi ndax den koo fàtte moo ndax danoo fàtte ana lan moo tax sëriñ Tuuba Xaadim Rasuul sanc dëkkam bii di Tuuba laa la wax ma ni yooyu la école ku ko bëgg a jàng ak ku a doon dekk gone mbaa ngay waajur bëgg sa doom jàng ko nekk mu génn dem jàngaane ko waaye fii ci Touba duñ ko fi jànge duñu ko nangu procès diffamation bi doxoon ci diggante Mansour Faye ak Mimi Touré l'info yëgle kaay naan man Mansour Faye ci jëmi boppam essuwee na ci condamné Mimi Touré kaay ñu wax ci leneen wax ci li nga xamante moo di assemblée nationale dissolution de l'assemblée nationale ou législative anticipée ak lu mën am ndax dañuy wote anticipé wote député yi tabaat yeneen i député ndax dañuy dissoudre li nga xamante ni moo di assemblée nationale lu jëm nag réunion de bureau convoqué niki tey cet après-midi ngir ouverture d'une session extraordinaire proposition modification du règlement intérieur déclenché semaine gi nu jëm aa ngi ma doon wax waxi Touba léegi man la ñu jëm ci màggal yëglekaay gi naan man ndox ma fa Touba fi ñu toll ni tembe faaw nu wax ci nag yëglekaay gi naan man ndox ma def na jëye antenne quotidien yëglekaay ko xamle drame a Touba les inondations font une nouvelle victime maa la wax lii Walfadjri quotidien yëglekaay naan man waxal ci loolee lii duñ ci wax en tout cas ndawal moom fa ndakaaru njaay jal job 2600 xar gi naan maan bis bu yàlla sàkk ak 550 nag faat par jour ca région ndakaaru njaay jal nanu dem ca dëkk bii nuy wax gumel booy bi ci jëmi boppam di woo ci turu korea ab bor la ameel nit lu tolloog 200 tax mu xaru moo bor daa a xarom liit ah doy na waar sëy laati bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de bi ak déglu gi ah, ñu ngi leen di jaajëfal ci bàyyi xel gi également di leen wax ni jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax ah Ousmane Sonko di dégg ngeen kàddu yi mu wax moom premier ministre waaw nee na daal dootul nangu bokkal geek ah man man daal nag man daal bu ma ci kenn dugal man soriwu ma ci waxuma ci Ousmane Sonko ko wax ay kàddooma waaw na leer nay na ma ne ko nay leer naññi waaw dameel bëggu lëndëm nay leer saay mu baraak samay mbokk samay soppee euh, fans yi gaa yi may teewlu également ak di ma topp laa koy wax di leen wax ni maa ngi leen di jaajëfal te kontaan naa ci yéen kontaan contentement boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ah maa ko diggee maa ne ko commentaire ma tudd sam tur moo taxit Serigne Abdou Salam Sarr maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal euh, Cheikh Bamba ñi ngi également di jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi may bàyyi xel di nuy bu baax a baax Samba Balde di bigge bu baax a baax a baax également Keba Dia maa ngi koy bigge bu baax a baax El Hadj di bëggee Abdoulahat Diop di bëggee Binta Sarr di bëggee bu baax a baax Khady ann di nuyu Mor Seck di bëggee Michel Tine di bëggee Oumar Diallo di bëggee Abdou Kane di bëggee El Hadj Ba di bëggee bu baax a baax Cheikh Wade di nuyu Mamadou Cissé également di bëggee Mamadou Diouf di bëggee Mamadou Lamine Seck Absa Gueye maa ngi koy bëggee El Hadj Ba maa ngi koy wax sànq di bëggee mataar Diouf di nuy bu baax a baax Lamine Touré sama xarit maa ngi koy bëggee Mamadou Diagne Baye Diagne maa ngi koy biggee Alioune Fall maa ngi bu baax a baax Jaja Diop maa ngi koy biggee di biggee Cheikh Ndiaye di bëggee bu baax a baax Cheikh Omar Diop di bëggee Soda Mbodj di bëggee Mamadou Makhtar Diagne di nuy bu baax a baax Fatoumata Binti Diallo Mamadou Lamine Ndiaye maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee di bëggee sama xarit bii di euh, info du jour si Malick maa koy bëggee bu baax a baax di bëggee Ami Jabaay di nuy bu baax a baax Ami Ñing maa ngi bëggee bu baax a baax Thierno Mbaye euh, kenn du ki nga xamante ne moo di Fall Café Modou Laye bi 1 ak 2 ay Bousso ñoom ñëpp daam ngom ñoom ñëpp sama xarit yi ah daam kunta ngañ jaxumpa ah naa ki nga xamante ni moo di jaxeer euh, Diop sama xarit ah Cheikh John patriote bu mag bi maa ngi koy bigee bu baax a baax nee na ma ndeysaan Fall Damel da ngaa oyof rek moo tax ñëpp xajoo la wallaay ndeysaan yàlla na lu gën a oyof toll gën a baax waaw kay El Hadj maa ngi lay nuyu bu baax a baax di leen wax ni le 13 gi ñu jëm. damay ñaanal sama waajuru góor ak sama waajuru jigéen ma ak samay mag ak samay rakk dañ leen a fa yéenee ñaanal ak sunu benn euh, frère bu wàññeeku di woo ci turu Jibi Fall moom it dañ koy ñaanalaale ca bis ba donc euh, le 13 août la ca pirub ndëri la ca pirub ndëri lañ koy defee euh, mi nga noonu ca cosaan la waaw fan soqi koo fa lañ koy defee nee naa leen ñaari dëkk yi dama ko bëgg muy pirub ndëri ak gosaas Pire laa juddoo moo tax ma bëgg ko samay waajur falanu falanu falanu nu fekk baax également waaye gosaas li tax itam ma bëgg ko lool mooy falaa màgge liñ naan li mu doon tey gosaas la moo ko def donc gosaas falaa màgge donc falaa jànge également ba ba ba falaa jànge sama mm, primaire ah dem xaar kan def fa sixième ba terminal donc awma seen fay waa gosaas jërë ngeen jëf waaw waaw waaw loolu la nit ki da ngay fonk sa cosaan ah jox leen dig daje yéen ñëpp ku ci nekk waaye bindal ma ci commentaire yi sa village ca cosaan waay loolu daf may neex waay nit day fonk cosaanam waaye nekk Dakar bu nee la foo dëkk nga naan Pikine mbaa Wakaam mbaa Tëngéej ah pirum ndëri ak Gosaas laa fekk baax jërë ngeen jëf ba subaak jàmm